xeexum jàngoroy coronavirus fii ci Touba Mbacké def nañ ci jéego yu am solo ba tax na jàngoro ji deltu na fi ginnaaw ñaar fukk ak juróom-benn cas yi nga xam ne ñoom lañ doon faj ci centre de santé bu nekk ci daalul Daarul naan ñaar rek ñoom ñoo ci desoon te ñaar ñooñu sax wér nañ léegi ñu génn loolee ki nga xam ne moo di sous-préfet bu Ndaam moo ko xamle. mi ngi mel ni que sax Covid 19 bi doole yi ñu dajale ñoom moo tax ñu daan ko fi mu toll fi nii fii à Touba gagné nañ ko. dëgg nag duñu duñu naagu parce que cas yi ka moo si desoon yaakaar naa ne sax boo moytu xëy na tey wala suba dañ leen di libéré ñu génn macha allah moo tax dèjà euh, adduna bi yëpp ak euh, Sénégal yëpp ñu ngi ñëpp ñu ngi xool Touba di ne mais Touba a gagné la le mais bu mu fi duggaat tamit. jéego yi nga xam ne nag mboolem kilifa yi nekkee ci dëkk bi def nañ ko ci jàngoroy coronavirus gi fii ci Touba am na solo lool. deltu ginnaaw gi nga xam ne moom la jàngoro ji deltu ginnaaw bu mu tax ñu naagu nañ gën a renforcer waat li nga xam ne moo di cet gi góorgóorlu si wàllu cet mesure d'hygiène yi nga xam ne bi moom la ministre de la santé et de l'action sociale édité ñu respecté ko bu ñu ko defee rek bu soobee yàlla yàlla dinañu may tawféex xeexum jàngoroy coronavirus fii ci Touba su weesoo zaahir gi xeexum baatin gi mënu cee ñàkk ah dañ ci ñaan tamit sëñ bi rek ñoom it ñu continuer ñaan bi ñu siy def ñun moom ay dëgg la ay ay ay jullit lañu dañ koy xeex si baatin ak ci zaahin loolu moo ñu may tawfiix tamit. doonte jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus deltu na ginnaaw fii ci Touba Mbacké warul tax askan wi bàyyi seen loxo ci xeex gi nga xam ne ñu ko doon xeex ak mboolem mesures yi nga xam ne jël nañ ko. xeex bi nag nee ñu du yem fii dey wéy ndax jàngoro ji waruñu koo gisati fii ci dëkk bi.